jamono yi ñuy wax ak yeen adina bi ñi ngi dekkum ban bo mo xamne France Macron moko waral muy ay caricature yo xamne ñi ngi koy jëmele ci julit ni di caricature yonti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu don lo xamne jaadu wut jëkkut yelu ak ku ko mënti ki def loolu nak ci lañu yëkëti yëkkati suñ kàddu wane yonentu bo xamne 1 milliard 500 millions musulmans ñi ngi rancé wu ci gannaawam soo xëyee di ko caricaturer yaa ngi fay yaa ngi guux safara di wërëb taal te loolu la Macron def maa ngi lancé message jëmee ko ci suñu gouvernement wane ne bëgg nañ mu yëkkati ci kàddu ndax am na sañ-sañ yëkkati ci kàddu am na sañ-sañ woo ambassade France am na sañ-sañ am na sañ-sañ di lancé message jëmee ko ci xalif généraux yépp kenn ku ne ana ci yëkkati kàddoon di ko ñaawlu ba ca péncam yàlla di taxaw ne lii gouvernement France def amul ci sañ-sañ ak képp ko ko ci jàppale li tax adina bi do comprendre nu mu doxé Union Europe tay ñi ngi rensewu ci gënaaw Macron diko défendre te téggul fenn Angela Merkel ma ngi gis mu diko défendre fan la téggu téggul fenn te buñ mir mu né bo bëggé xam nu mu toon toll ci yow rek nga koy renverser su fekkoon né li Macron wax musulman yi tay dañ ko wax chrétien yi wala ñu wax ko jifi kon lañu xam nu mu toll kon du lu jaadu du lu jekk lool mo doon suñu cadre ñi ngi balu ak ñep di baal ak wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala